internautes Dakar Actu ñoo ngi leen di nuyu amaan mbekté bu baax àndaat ak yeen ci seeni émission Actu Débat Actu Débat té nak ñew ubbi fenêtre bu yaatu ci enseignement supérieur ak impact bi nga xamanteni fièvre bi di Covid 19 amna ko ci waye tamit ñu wara waxtané li nga xamanteni mom mo nek force Covid 19. denrées alimentaires yi nga xamanteni mom la gouvernement bi génné ngir jagleel ko les familles les nga xamanteni ñom ñoo gëna a néew kattan doolé si li nga xamanteni mom mo nek febar bi di Covid 19 motax tax nous ñu dalal fi ci suñu plateau Actu Débat kii di professeur docteur Babacar Diop nek enseignant euh, à l'université euh, Cheikh Anta Diop bu Dakar nek également coordinateur national des forces démocratiques sénégalaises les Guelwaar alors docteur professeur euh, ban titre. docteur <laughs> docteur maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay ziar di la nuyu Daouda. Mm. Eh, di bég ci dajé bi ma ak yow. Mhm. Eh, ndax suma dajé ak Dakar Actu mom depuis ay weer. Mhm. chaque jour ça suñu ko programmé. Mhm. am rëq-rëq. tout à fait waye amna na ñëw fi ci Dakar Actu waxtaan ak sénégalais. merci beaucoup plaisir partagé docteur ñu xamné xam-xam bi nga yoré war ko partagé ak ñun lu yaatu la alors docteur ñu wax rek. Euh, impact bi nga xamante ni enseignement supérieur ak Covid 19 am na jamono ji mu mel ni yéen universitaires yi bokk ngeen si ñi nga gën a ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a sentir lii di feebar bi di Covid 19. waaw feebar bi dugg na ci bërëb yépp euh, ci liggéey yépp. Mhm. rëq-rëq yi yaatu na lool weesu na rekk waa santé dugg na enseignement supérieur. tout à fait. dugg na ci njàng mi yépp ndaxte même njàng mi si suufee xale yi ñu ngi toog seen kër université yi tëj nañ jamono bi xale yi ñibbi nañ wax dëgg yàlla maa ngi ciy profité di masawu suñu junni junni junni étudiants yi nga xamante ni ñibbi nañ ñi ngi ci biir réew mi nekk ci ay jaaxle mhm. di laaj ay questions yoo xam ni booba ba léegi mhm. ñi ngi ci indi ay ñi ngi ci ñi ngi ñi ngi koy laaj mhm. gouvernement bi war ci indi ay tontu administration bi aussi bi nga xam ni moo yor njàngale mi ci université yi war ci indi ay tonnes. Mhm. Euh, waaye loo ci mënti dégg rek euh, coronavirus bi dafa bëri lu mu wane. Mhm. li mu wane mooy suñu réew yi pare parewuñ waaw loolu mooy li dëgg ci côté boo ko jël rek. Mhm. wan nañ ni parewuñu mais wan nañ ni yoon it ni am na noo xam ni de ku ko def it mën nga góor góor lu dem ndax na am nay réew yuy jéem. du développement da nga koy xaar ci tubaab yi rek wala da ngay xaar banque mondiale am na ay réew yoo xamante ni tubaab yi ñu ngi leen embargo boobu ba léegi mm-hmm. lu ëpp juróom fukki at exemple Cuba coronavirus bi wane nañ ni ñoom jóge nañ dem di dimbali ji ay réew yu mel ni Europe mm-hmm. soo ko xoolee ci li ñuy lekk mm-hmm. insécurité alimentaire moom la nit ñi ragal ci dëkk bi ndax li ñuy lekk bitim réew la jóge li ñuy fajoo ay njaqare mo am ci ñepp ñi febar ndax tay ji wa France nenañ seeni garab dañ koy téye kon fan lañu jëm ak ñi nga xamni ñi ngi ci kër yi dal di febar li ñuy solo bitim rew la jëm njàngale mi ñew tay ji dekk yi nga xamanteni ni yépp normal nañ njang mi mi ngi continuer ndax so xolé guerre sax jang dafa war a continuer amul dara lu mëna xew ci aduna lu tax ñi téye xalé njàng mi mën a ci ca yooyu amoon nañ ay possibilité wajalon bu baaxa baax suñu bop gis nga so xolé indice euh, mm-hmm. de développement des TIC mm-hmm. Sénégal mi ngi 132e position loolu day wané ni mondial mondial cent trente position mm. concertation sur l'enseignement supérieur dañ waxoon ni utilisation des technologies de l'information et de communication dans l'éducation dans nañ ko dans le ko mhm. dans gon ngoon ko dooleel mhm. université mais dara amu ci ba mhm. ah, continuer année blanche warul am état bi am responsabilité jël ay dogal fexé ba étudiant bu ne ak fo mënti nek ba am internet war nañ ko mën a monter ay plateforme yoo xamante ni ñoom war nañu mën a continuer seen enseignement ñun jàngalekat yi aussi hmm. état bi war nañu mën a dimbali monter ay plateforme yu performant yoo xamante ni njàng mi dina mën a continuer je pense que ni hmm. loolu euh, ci la ñu nekk ñun ñëpp fan yi yëpp hmm. ah, li ci su e wax aussi wax na dëgg euh, njàqare bu mel nii bu ñëwee je pense que ni gouvernement bi lépp lu muy wax syndicat yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk njàngale mi war na leen cee laaj seen xalaat. Mm. dëgg-dëgg ndaxte ñom am nañ expertise bi am na ñu ci nek ñu am xereñte ñoo xam ñoom aussi am nañ ay proposition yo xam mën nañ ko def gouvernement bi je pense que bu gouvernement bi bolé bonne foi. Mm. mu bolé aussi bolé ci jàngalekat yi bolé ci expertise bi nga xamante nek na ci réew mi yépp japp naa ni ah waajaluñu suñu bopp mais li ñu mën a corriger dañ ko war a corriger njàngale mi moom daal di mën a continuer waat mais jàpp lu étudiants yi bari bari sori sori responsabilité état mooy fu étudiant mën a nekk ci Sénégal mu def effort fexe la nga am internet. Mm. am plateforme yoo xamante ni di nga mën a suivre say enseignement mm. loolu moom mooy dëgg. alors yaakaaroo docteur état moo ngi ci jéego yooyu ngay wax d'autant plus que dégg nañ tout récemment le ministre wax ne y a des dispositifs yoo xamante ni jël nañ ko fexé ba nga xamante ni cours dina continuer té benn impact du am par rapport ak année balance ak nu mu mën a non je pense que dispositif des na déclaration la wax. Mm. ñi ngi ci liggéey ñëpp ñi ngi ci japp man gis na ñu nekk ci terrain bi mais problème bi ñu am deug deug moy effectif yu magi euh, so démé ay première année ay deuxième année ay junni junni étudiant lañ. Mm. ñu ci bari nekku ñu Dakar ñibbi nañ. Mm. problème internet lañu am est-ce que chaque ordinateur chaque étudiant am na ordinateur est-ce que chaque étudiant fa mu nekk amna amna amna amna am connexion bu doy amna sax connexion waxuma la bu mm-hmm. muy doy ak mu ñak doy. Mm-hmm. c'est des problèmes yu sérieux mm-hmm. man étudiant master yi nga xamni yor na leen pose moins de problème parce que ñu téeméer. def na barki demb ak ben test ak ñom pour xol ndax mën na ma début, mën na ma euh, commencer wat sama jàngale test bi ma def pour ñom mais ñu ci bëri connecté wuñ parce que fa ñu nek amuñu connexion ñu ci bëri. loolu c'est un sérieux problème bi def même bu fekkee amna na wala suis yo euh mënuñu bok ndax amuñu connexion ndax zone bañu c'est un problème d'équité je pense que année, ay est en la soko nak échelle bobu moy étudiant en mais imaginez étudiant yi nga xamné première année ay junni junni da ngay dem ci amphi ay philo rek. philo hmm. waxuma département euh, université Cheikh Anta Diop. Euh, département euh, de, de, de, de faculté des lettres. faculté des lettres. nga xamni département yi bëri mais yama lay jox ben département département philo rek nga xam mat nañ junni. Mhm. ak juróom-ñetti téeméeri étudiants ndongo. Mhm. nekk ci biir réew mi fu ne nekk ci village je pense que ni ñooñu responsabilité état la ñu wut ay. Il y mbir yu dimbali ba suivre enseignement donc la déggee ngay wax dafa mel ni ñun pareeguñ ngir dem si li nga enseignement à distance. non enseignement à distance am ci ay mbir yoo mais enseignement à distance mënul remplacer enseignement présentiel. Ah ah. non non l'international de l'éducation a un rapport bu vu tous les moyens immobilisés. situation exceptionnelle dañuy am adopté parce que dañu nekk ci situation exceptionnelle. des mesures exceptionnelles. mesures exceptionnelles. Si nous ci guerre sax guerre bi dafa continuer. même si nous contre ci guerre l'Allemagne yi contre nañ guerre deuxième guerre mondiale. mais Covid 19 moo une guerre hein, docteur. Si nous bu une guerre nous avons xam dañuy Nous ay bomb rassemblement lay dama ne bu ñu doon sànni ay bomb hmm. ci dëkk jàng dafa war a continuer amul dara lu war a mën a dakkal jàng ci dëkk hmm. ndax ci de suñu lépp aju suñu lépp suñu yaakaar ci réew mi tey ëllëg suba lépp ci njàng mi la aju lu situation métti métti rek hmm. dañu war a adapté wu ci situation boobu fexe ba njàng mi mën a continuer ndax loolu mooy ëllëgu réew mi mm-hmm. ñàkk jàng moom moo moom moom catastrophe la moo gën a garaw mm-hmm. moo gën a garaaw Covid maintenant mm-hmm. am na dëkk yoo xamante ni njàng mi mi ngi continuer ay dëkk yu bëree bëri yoo xam ne njàng mi mi ngi continuer ñun nañu roy ci dëkk yooyu nañu roy ci dëkk yooyu ñu xam ni am nañu ak tardé ba pare waaye ñu am humilité xool ci dëkk yooyu humilité aussi impliqué syndicats yi impliqué ñi nga xamné am nañ xereñte yi ci université yi ñu impliqué leen je pense que bonne fois bobu bu ko gouvernement bi woné japp naa ni am ay rek rek waye fi ak ay quelques semaines parce que amna ay effort japp naa ni dinañ ci góorgóorlu ba liñ ci mëna a def ñi def ko. ba bu situation bi changé aussi Ni delluwaat ci classique. Quand da nga jàpp ne war nañ auditer plateforme bi enseignement à à distance bi enseignement en ligne bi war nañ ko auditer ba nga xamné ne dinañ xol fu rek rek yi nek lolou nga bëgg wax. non UVS mom c'est un autre problème UVS <laughs> euh, parce que. Ah curieusement. Hmm? de manière paradoxale UVS fonctionné ah bon C'est eno yi tej nañ. Eh, alors que UVS waroon nañu ñooñu waroon gëna utile ci situation bi ñu nekk. Et je pense que c'est un sérieux, sérieux problème à ce niveau. Donc de faillir à sa mission euh, Bon, en tout cas, situation bi ñu nekk nii. Mm. Mm. euh li nga apport boo xamanteni ni UVS amal nañu ko dans dans cette situation. Mm. à ce à ce niveau. et encore une fois de plus amul dara lu mën remplacer xale yi dugg ci sali def ay cours dugg am professeur di def ay amul lu ko mën a remplacer dañu nekk situation exceptionnelle. Hmm. bu ñu ci jeexee bu mbir mi jeexee li ñu continuer di am ay université yu normal qui hmm. ciy jàng loolu dara mënu ko remplacer. Hmm. c'est un rapport de l'international de l'éducation moom moo wax loolu. maintenant situation euh, coronavirus ñëw na. adduna changé na. xamuloo kañ lay jeex dañu war a adapté adapté wu ci situation bi fexe ba njàng mi dooraat waaye ni mu mën a doore mooy ndongo yi fuñu fu ñu mënti ne ci biir réew mi mm. état bi amna responsabilité jappalé leen bañu mëna am connexion bu doy bañu mëna nek ci condition yo xamanteni cour cours yi dinañ ci mëna jot mm. alors euh, Babacar face à la propagation de la pandémie moy covid 19 bi ñu bari japp nañ né tay éducation bi dañu wara décréter li nga xamanteni ni mo nek année blanche ñu sauver année bi baye bu benen année ñu soga reprendre est-ce que yow da ngay partager avis bobu à ce que ñu dem ci année blanche c'est une position défaitiste c'est une catastrophe catastrophe là am mhm. je pense que ni irresponsabilité et impuissance. Mhm. devant la situation mënul raw loolu débat mhm. impuissance devant la situation. La maladie est là, il faut l'affronter. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, partout. Dans, tous les fronts. Oui, si nous sommes dara. Walu xalé na duma la may dara. Mok maladie bi nonu Ñun non je pense que jima pour un État un mhm. scénario année blanche mhm. je pense que c'est irresponsable Je pense ay deuk yo xamni ne ma continuer de fonctionner Nous devons adapter, wu les moyens qu'il faut mettre ko à la disposition expertise locale bi ba nous mi mën mhm. et les nak sokay xol Et eh, daf lay wone ni je pense que ñi ñi jité lo ci mënti dégg Hmm. c'est vrai que les autorités aussi toutes les dispositions ba nga sauver. non année bi mënul mënul mënul faculté paré nañ premier semestre. Ah nañ premier semestre ba ba commencer examen li examen hmm. dernier jour examen problème bi problème am xel am fi nañ ko mobiliser mobiliser expertise bi fi nek ci biir université yi ci biir faculté yi am ay ins bo demee ay ESP am na fa ñu am ay xarañte bi ñu mhm. mobiliser expertise bobu yépp mhm. je pense que xalaat <laughs> année blanche je dis que moy euh, wane suñu impuissance très mhm. sincèrement devant la situation alors que dëkk yépp ñi ngi fagaru Taku affronter maladie bi ci côté yépp ci fan yépp ba mëna doxal sen dëkk. donc lan mo wara don solution yi fu nek ni non ci walu jang bi mom mhm. liñu ci mën fi. Mhm. pour le moment ni ni. amu lu mobiliser installer ay plateforme. Mhm. yo xamanteni jang bi dina mën amul lanen lu ci mëna am. mais une seule condition ñu mëna dimbali xalé yi junni junni junni junni xalé yi nga xam ñi ci seen biir dëkk ak fu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ak lu mu sori sori sori je pense que aujourd'hui état bi mën na nuyee ay partenariat yoo xam ni mën na ko may ak Orange wala ak yeneen mhm. ba xale yi fu ñu mënti nekk ñu mën a am connexion bu doy ñu mën leen a jàppale ci fekkee am na sax yoo xam ne état bi mën na ko mettre à leur disposition muy ay ordinateur ak lu mu mënti doon mhm. ba ñu mën a suivre cours yi parce que loolu mooy li jaadu je pense que xale yi ne ci àll bi état bi war na leen mën a jàppale ñu am ay ordinateur ñi nga xam identifié ba ñu ba njàng mi mën a continuer ndaxte aujourd'hui kenn xamul fan la feebar bi jëm ca année bi moom mënul blanche parce que def nañ genn wàll gi ba pare def nañ ko jàpp naa ni li ci ëpp solo mooy ñëpp mobiliser wu ñëpp ñëpp xam ni lii moom tappale xaju ci je pense que li qui def ci ay erreurs du gouvernement bi doy ce que c'est que ci Covid mm. et je pense que pouvons mobiliser ou au moins ñu pouvons sauver année année universitaire. Mm. alors docteur euh, Babacar Diop bu êtes professeur d'université Binganek, bi nga Cheikh Anta Diop bu Dakar et yaa également coordinateur force démocratique sénégalaise secrétaire général secrétaire général alors Babacar. Euh, élan de solidarité nationale pour la lutte contre la pandémie du coronavirus ici au Sénégal Bolé opposition pouvoir société civile ñep. nan nga gissé élan de solidarité bobu? non moi je pense que <laughs> élan de solidarité est trop. Hmm. mais au Sénégal dañu wara a di nax suñu c'est-à-dire. mak du nax je pense que. Hmm. mbir dañu wara wax deug le président de la république ci dëgg. Hmm. ci maandute rëq-rëq yi am opposition dafa war def ligueyam. c'est-à-dire Babacar. def ligueyam mooy opposition bi même en temps de crise dafa wara continuer li nga xamante ni di am mu koy dénoncer. Hmm. loolu moy taxawaayam société civile continuer li nga xamante ay rëq-rëq la ci jaaduwul du deug mais ben nafiq ben mbir mo xamante ni xamul lu muy tudd ñu bëgg ci duggal ñëpp ni ken du wax lu ñu wax ñi ni gongo rafet na je pense que ni ñun ku ñu xaar doo ñu ci gis on refuse de hurler avec les loups et donc je pense ku ñu ciy xaar du ñu ci gis li am moy dinañ jappalé président de la république ci dëgg ndaxte jappalé ko ci dëgg mooy wax ko ni ko lu toog juróomi fan nga ubbi sa palais de la république boobu. Mhm. jël RTS branché di recevoir rek communicateur traditionnel ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee Benno Bokk Yaakaar loolu mooy wane ni moom xamul xamul xamul agenda, euh, libre na ba amul lum ciy def wax ko ni ko euh, euh, stratégie bi mu teg baaxul mhm. mooy président dëkk yi nga xamante ni dañu sérieux yëpp ña ko jiite ñi ci terrain bi di affronter la maladie sur le terrain di jël ay risque di dem ci hôpitaux yi di dem ci laboratoire yi di dem Macron on l'a vu dem na ba Marseille seeti professeur Raoul ak ñeneen ak ñeneen ñeneen mom kañ lañ ko gis moom président de la République kérok ba ndimbal yi génnee muy wër saaku yi ceeb mel ni koy def euh, xamu numu ko tuddee di wër je pense que image yooyu baxul image yooyu day wané ni suñu njiit yi lañ leen doyam matuñu ko je pense que ni euh, def suñu liggéey opposition mooy wan ko ni ko non seulement enveloppe 69 milliards yi néew na du dara ñu du dara 69 milliards yi ça représente 6 virgule 6 pour cent du budget mhm. néew na trop wax ko ko mais xamal ko ni ko ni ñu ko war a gérer ni ñu ko war a yoree mhm. dafa war a set dafa war a sell mhm. ba ñi nga xamante ni ñoo tax mu jóg muy néew gi doole yi mën a ànd mën a àgg ci ñoom waaye doo jël famille nga dugalaat ci biir ñi def lu leen neex ñu jël marché ya tànn ña leen neex ñu jox ko ko. Ah. ñu jël affaire euh, transport ba tànn ña leen neex ñu jox ko ñu jox leen ko yooyu yëpp dafay indi ay rëq-rëq dafay indi ay tiitaange dafay indi jaaxle ci Sénégal yi. Hmm. Babacar yaa ngi wax léegi euh, opposition bi dafa war a def rôle am mooy opposé loolu la ñuy wax l'opposition doit s'opposer société civile bi daf def rôle est-ce que euh, jamono bi ñu Babacar euh, vu la propagation feebar bi ci dëkk bi ku nekk mo ngi inquiété wu est-ce que tamit jarut euh, ñu joxante loxo nekk benn teer suñuy këral politique. këral amul feebar bi dafa am lu muy bañ li muy bañ opposition bi defu ko rassemblement. Hmm. loolu la feebar bi bañ. Hmm. rassemblement la feebar bi di bañ. tout à fait mais feebar bi waxul ni bu kenn wax feebar bi bañul critique ah en tout cas dégg ko ma médecin yi. <laughs> ci s'est diglé, digle ni na opposition bi nopi. déggaguma médecin yi ci s'est dit que les ni na waa société civile nopi. mais le climat climat social bi le climat social. da nga fi dégg ay rassemblement da nga dégg ay marche da nga dégg rassemblement da nga dégg ay marche da nga dégg ni opposition bi ni dañuy marche dem palais wala nga dégg société civile mais le président de la république tey jii kuy mm-hmm. waxal dëgg mm-hmm. Le Sénégal di nga bi ko ci mbirum mhm. mais lool des ko 69 mhm. milliards de francs CFA. 69 milliards non seulement doyul mais nañu ko de ci marché ya baaxul loolu loolu ñëpp xam nañ ko. Mhm. ñi waxal ci Sénégal ñor leen ñom xam nañ loolu baaxul marché yi ñu c'est-à-dire que bi yaa que bi exactement Babacar. marché ni ko joxé baxul ah oui. mustapha Tall ci ceeb. Mm-hmm. yaakaar naa ni du Babacar Diop ci mbirum ceeb. Mm-hmm. tout à fait lim ci wax ñi ñiñ ko jox 70% marché yi. Mm-hmm. xamuñu len ay courtier lañ mustapha Tall yakar naa ni du xalé makum jëm la ci mbir mi. mais dégg nañ tamit ministre bi naan c'est par rapport à la disposition des stocks. non ministre bi amul aucune crédibilité si on était dans un pays sérieux ñaar mooy am day démissionner wala Macky Sall démettre c'est ça la vérité. c'est trop Babacar voilà. mais attends situation est ñu nekk nit ñi nekk ci jaaxle. Hmm. ñoom am nañu temps. Hmm. de faire ci ay transparentes. transparence fi nit ñi toll fi àdduna bi toll fi réew mi toll est-ce que newul yéen yéen yéen tamit yéen a ko yëkkati euh, voilà te affaire bi c'est pas transparent une occasion boo xamante ni saisir ngeen ko non non non non su lépp leeroon coow du am marché transport bi mhm. ñi ngi ko indi dara leeru ci ca pendant ce temps transporteurs yi waxoon nañ ni ñoom ils étaient disposés jàppale état bi ci loolu ñu jël marché bi jox ko quelqu'un boo xamante ni non seulement ci ñoom la bokk nekk député ca loi bi interdire mu mën a nekk chef d'entreprise nekk député ba am yeneen ñu ci génn euh, Birahim Seck bu Forum Civil <laughs> wax na ni entreprise boobu ci boppam li mu yoreel ay bor ci état Sénégal kenn xamul nu mu toll plus de 200 milliards presque 300 milliards ak yeneen nag am na ñu ni sax entreprise bi dem nañ ba ni entreprise bopp ci boppam da déclaré nañ ko fayit ñu jox ko marché yi yooyu yëpp day wane ni sama sama gars ñi mënuñu changer. lañ xamoon démb ca lañ nekk ba léegi moo tax opposition bi war a continuer def liggéeyam bu baax a baax opposé wu wax président Macky Sall li nga xam ne mooy ay rëq-rëq. Hmm. ba ñu mën ci indi ay saafara ba ñu génn ci situation bi bu ñu génnee ci situation bi xam nga ni bu fekkoon opposition bi. tenirul compte situation bi tey jii nga ni rassemblement yi manifestation yi mi ngi am mais xam nañ ni ñu ngi ci situation bu bees mhm. looloo tax mhm. mais nekk situation bu peex warul tax nit ñi daal noppi mhm. alors yaa ngi wax euh, nu ñu joxee marché ceeb bi marché transport bi est-ce que tamit ce n'est pas l'urgence tollu nañ jamono bo xamanteni gaay gars yi mënuñu xaar il faut ñu jox leen daar aide bi ils sont dans le besoin gis nga transparence lu yomb la hmm. <laughs> lu yomb la ah oui waaye urgence. comment. mais ay pratique la lu yomb la. Mhm. ay pratique là bu nañ ko ci mu transparent ben du am lu mbir urgence urgent urgent urgent mën nga ko ci ay pratique yu leer. Mhm. yu set yo xamne dara du la dara. pourtant nous publier nañ marché nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko distribuer publier nañ document bo xamanteni day objectivement ni nga xamante non lañu la ciblé. Euh, ministre bi seetaan nga conférence de presse. sétan nako si convaincre na la. je vous laisse répondre à cette question. <laughs> daf la yokk jaxlé wala daf la gëna léral kon da nga japp né leeralut. je dis suñ nekkoon dans un pays sérieux Mansour fay day démissionner Macky Sall wala Macky Sall jël euh, responsabilité am daal di koy dakk c'est ça la vérité gestion dossier bi une catastrophe la le ah. marché yi ko transport bi niñ ko marché transport bi ba paré ciow am nga le camion chargé <laughs> c'est de l'irresponsabilité société bañ jox marché nga joxé sa marché génn hmm? nga justifier ni camion indil chargé mais ana ñi jox marché le ba c'est de l'irresponsable Banenbi. bi dans un village nga chef de village bi gennel ma juromi keur yu la chef de quartier bi. lol fan la Babacar. ay village yu comme fan exactement amna ci côté Tamba. Hmm. amna côté mën naa la jox pour après dama yorul mais yoroon naa ak du du yu ak yu bëree bëri yoo bien sûr ay Thiès gi ak faneen ak faneen am na fa mm-hmm. Mm-hmm. donc dans des situations xam dañuy wax chef de quartier yi nañ ak faneen loolu bëri na bëri na trop. Mm-hmm. à ce niveau je dis loolu lépp ay ay problème la yoo xam ay rëq-rëq la mooy li nit tiit mooy est-ce que ceeb bi ñi mu war a dem ci seen loxo est-ce que dina fa je pense que ni lolu motax man may ñaan président de la République mu waajal une deuxième enveloppe mhm. parce que lolu ci mën mënti dégg bo taxawé nga jàkkaarloog sénégalais yi mhm. daan ni di nga jox 1 million de ménages ak dix millions de sénégalais dundal leen da ngay wax lu la neex lolu mhm. nañ waxante dëgg ciéb bi ñu fi génné mom mooy dundal dix millions de sénégalais lolu du dëgg matut nga bëgg wax dëgg c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas trop les mots c'est pas vrai dix millions de sénégalais mënu ko dundal lol c'est pas vrai amul li diko tous 10 dix millions de sénégalais amul c'est pas vrai et je pense que ni état bi mo wara une deuxième enveloppe wadjal ko. Mhm. bu baax a ci ñu fexé deuxième enveloppe bobu meuna jubanti jubbanti rëq yi nga xamanteni amna ci séddale bi ak ñi nga xamanteni peut-être amuñu ñu fexé nañ lañ leen mën dimbali bu baax baax parce que euh, japp na ni. Euh, corona am na mais xiifit ñu ngi koy tiit ci dëkk bi ca koor ci koor la ñu jëm. Mm-hmm. Babacar euh, yaa ngi wax transparence bi si wàllum séddale bi si wàllum marché yi tax yow déposé nga benn plainte ca nag lan moo nekk fondement plainte boobu. waaw fondement plainte bi mooy nag dafa war a saytu lépp loo xam alalu réew mi la. Mm-hmm. ca dugaluñu ko. wala ñu am lu ñu tiit ni fam waroonu dugg dugg fa wala nañ ko warona jaarale mhm. ci boppam ñi indi ci ay leeral loolu dong lu mel ni 69 milliards ci situation bi indi coow lu toll ni ca marché ya nañ ko joxe transport ba ñañ ko joxe ak ña nga xamante ni est ce que yegg na ci seeni loxo loolu moo ñu ñaan of nag mbir mi comme coow li agsi na fi coow li na ci mhm. nako leral of nak mën na ci def ab ubi ab l'enquête mhm. dal di koy leral donc loolu dong la motax ñun ñu bind of ndax te dañuy bañ mhm. lu melni ni di amat parce que 1000 milliards lañ wax mais président Macky Sall bu démé ba yëkëti 1000 milliards waron na xalat gestion ba loolu moy suma déggé bo déggé manan dama japp ni lañ ko matuko mais réew mu melni Sénégal moom mu xam les pratiques de son gouvernement. Mhm. ak ñiko wër so démé ba 1000 milliards nga yëkëti ko force Covid. 1000 mhm. milliards waron na xalaat gestion ba waye do tok ba ñaari wër après ciow li bari ngay doga installer ab comité. je pense que lolu lepp wané né ay rëq-rëq ay défaillance ak ñak mat ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite. Mhm. alors euh, déposé nga plainte bi est-ce que mën nañ xam tamit euh, fan fan fan fan fan la toll fu mu nekk. waaw plainte bi mi ngi mi ngi mi ngi évoluer. Mhm. démb woo nañ ma. am na ci yoo xamante ni donc euh, mënaguma ci sori daal ndax am na détails yoo xam amaguma ko mais. donc démb ci boppam ñoom woo nañ ma confirmé ma ni ma jot nañ ko jot nañ ko réellement. Babacar est-ce que c'est le moment aussi déposer ay plante dugg fii dem saisir justice bi fële à la place que tey ku nekk yaa ngi war a dimbale ñi la gën a jege. ñi nga xamante ni yaa leen dimbali moom mi ngi am. Hmm. li ñu war a def est-ce koy def sénégalais yi mën a dimbali nañ ko def institution yi dafa war a fonctionner coronavirus warul nekk bunt wala ab fenêtre pour luubalkat yi déedéet. li nga xam ni dañ ko génne muy alalu réew mi dañ ko war a delloo. Hmm. ñu néew doole. war ko delloo ñi nga xamante ni dañoo feebar hmm. jox ko ñi nga xam ni dañoo jaaxle ñu dimbalante suñu biir waaye wërta nekk ab fenêtre hmm. pour fekk ñoo xam ni yoroon nañ ay milliards nga yokkaat leen ay ay ay ay milliards. Mm. Euh, yoo xamante ni teguwul fenn loolu duñu ko duñu ko nangu. Mm. alors Babacar dégg nañ tamit euh, yenn ci ay membres de opposition bi ak ñenn ci société civile bi doon sàkku ci kii di président de la république mu nommé benn personalité bu neutre bu indépendante. boo xamante ni moom mooy gérer fonds force Covid 19 mu mel ni def na parce que dëmb génnee na benn décret buy nommé ñi nga xamante ni ñoom ñooy bokk ci comité boobu alors est-ce que ce n'est pas une volonté politique pour plus de transparence dans la gestion. il y a aucune volonté politique ici bu manifeste bu ñu mën a wax. ah oui oui volonté politique. bu manifeste bu ñu mën a wax mooy. Hum, hum. soo nee damay yëkkati 1000 milliards pour xeex coronavirus nga accompagner ko une volonté manifeste ni gestion bi dafa wara rigoureuse dafa wara a leer nga wax ko dès le début ci tonalité bi nga jël toutes les mesures loolu moo doon volonté politique mais dooni damay mobiliser mille milliards bi feebar bi dugg see ci dëkk bi ak léegi léegi mu mat ñaari weer boobu ba léegi nga bàyyi sa goro. ak ñi la wër ñi ñi continuer def gestion boobu ba toll fi da nga la bien sûr si président de la république pas de 1000 milliards na xalaat la gestion aujourd'hui maladie bi bi mu ci dëkk bi lég mu mat ñaari lu ci bëri affecté nañ ko. Mm-hmm. diaspora comité bobu nan lay responsabilité est-ce que mën corriger loolu et occasion aussi mani. gouvernement Sénégal xamul lan la diaspora di représenté ci at ci Sénégal euh, jàpp naa ni euh, diaspora dañ leen war a respecté diaspora dina dugal mille milliards soo jëlee budget Sénégal muy ñett daanaka genn wàll gi ñett. Mm. un tiers bi dinañ ko dugal mille milliards li ñuy dugal ci réew mi moo ëpp fuuf li ñuy tubaab yi dimbali nga jël. 12 milliards, 0,9% du budget. Mm -hmm. Vous avez dit diaspora manque de respect. Il y a une diaspora. Vous avez Angleterre, vous avez 10 millions de francs. Vous avez le Sénégalais et l'Espagne. Vous avez le 30 millions. 30 millions. Vous avez le Sénégalais. on avez le Latino, pays latino. Vous avez le 10 millions. Pays latino, vous avez le 10 millions. Vous avez le je pense que gouvernement bi mënoon na téye xaalis boobu et je pense que ni diaspora bi sax ñoom loolu mooy seen position gouvernement bi mënoon na téye xaalis boobu tabax ci ay école dugal ci leneen mais jël les pays latino nga jox leen 10 million wala nga jël waa Angleterre nga jox leen 10 millions ni leen sedd leen ko je pense que gouvernement Sénégal respecté wul diaspora mais rëq-rëq yooyu yëpp nan la ko comité bi ni meuna meuna meuna meuna meuna corriger ak gestion yi ci am coow yooyu yëpp je pense que ni c'est c'est euh, tardé na loolu mooy li wér wér wér maintenant ñoo ngi xol di xaar ba xamanteni comité bobu nan lay commencer liggéey bi ak rëq-rëq yi jaaxle yi ci am nan la koy corriger. lan ngay xaar ci comité bobu boo xamné euh, opposition bi pouvoir bi société civile assemblée nationale ñëpp a ci biir. ñun lenn rek lañ mën a xaar comité woo lenn rek transparence ñun dañu am défi bu mag gis nga président Macky Sall hmm. dafa wër àdduna bi ay conseillers dugal ci moom nouvel ordre mondial muy wër. Hmm. télévision tubaab yi. manque de fierté sax mooy yow nga toog fi dëkk yi bi toll télévision sénégalais yi nekk ngay wër télévision tubaab yi boo jógee bu ëllëgee nga dem ci beneen mel ni amuloo liggéey sa dëkk. wala nga mën wax li ngay wax nga wax ko ak say journalistes yi nekk ci réew mi ngay wax nouvel ordre mondial bi di ko wax di ko répéter comme ça je dis que il faut mu comprendre que ni d'abord nouvel ordre bi fii lay tàmbali. du Sénégal oui c'est un problème de gouvernance en Afrique vraiment leadership bi ñu doon xaar ci moom au niveau de la Afrique mooy la gouvernance nan la ñuy yore suñu dëkk yi. comme mhm. bi génn suñu dëkk muy pétrole ak gaz nan lañ koy yore. suñu budget yi nan lañ koy yore ndimbal yi jóge ci bitim réew wa muy det ñi tubaab yi di ko lebal nan la ñu koy yore est-ce que mën nañu bàyyi benn classe politique wala yenn am d'affaires yi continuer toog ci xaalis boobu ñoom di gën a tedd di gën a am jël seeni doom di leen yóbbu bitim réew ñoom bu ñu feebaree ñu jël leen ñu faju ji ñun ñu bàyyi ñi ci ndóol bàyyi ñi ci tumuranke bàyyi ñi ci condition yi ñu nekk je pense que que me donne le vrai discours. Mhm. mais nous avons ci nouvel ordre l'annulation de la dette l'annulation de la dette n'est pas notre revendication. ah oui c'est pas notre revendication il faut qu'on ait le courage de le dire c'est pas la revendication de la jeunesse africaine il y aura aucune mobilisation de la jeunesse africaine sur cette question jeunesse africaine sa mobilisation c'est une revendication de gouvernance suñu un nan lañ ko yore suñu Alali transparence responsabilité Alors, ñu ko que ko wara dimbalé ci xalé yi ci gi ci am autosuffisance alimentaire. Hmm. c'est une honte 60 ans après les indépendances li ñuy sol nous li alors que industrie pharmaceutique nañ ko am bu tabax ay garab fi amul aduna bi amatul brevet. brevet ay médicament amatul soo amee industrie bi da nga koy defaral sa bopp. Hmm. ñu dem ay Inde di fa jële ji ay garab dem France France nee na tey jii day téye ay garabam fan lañ jëm. fan lañ jëm kon danga nga jàpp ne annulation dette bi moom waruñu woon sax xalaat lu mel noonu. mais il faut être conséquent. pourtant am na ay yu amul doole Babacar. il faut être conséquent. Hmm. Macky Sall mënoo jël leba leba leb dugal ci lu la neex 700 milliards terre. centre Abdou Diouf ñaajo plus de sos quatre soixante milliards. Arena stadium stade olympique bu bu bu ñaajo plus de cent soixante cinq milliards. arène nationale plus de trente deux milliards fu ñu ko dugal xaalis bi ñu leb fan lañ ko dugal. investissement. fan investissement xamuñu priorité. bu ñu ko ah. dugaloon ci njàng. dugaloon ko ci santé le plateau technique parce que suñu médecin yi mhm. la déclaration d'Abuja wax 15% du budget mhm. de ko santé on est à 191 milliards 2020 ça veut dire moins de 5% du budget banen bi yow 1000 milliards nga wax <laughs> force covid 19 264 milliards FMI la 138 mhm. milliards banque mondiale la ko banque islamique a 98 milliards banque euh, africaine de développement jox 60 milliards mhm. les 26 milliards banque ouest africaine de développement après ça veut dire c'est plus de 60% presque 60% du budget de la covid 19 tv5 eh, il faut qu'il arrête je pense qu'il a des déclarations à faire ñun nous, fal tuba bi ñuko wax ñun en Afrique ici le débat mais mënuloo à l'espace de 24 heures 48 heures nga dem TV5 dem France 24 dem Fanen, je pense que ni il faut am un peu de fierté que ni tout babi du ñom ñoy ñoy ñoy yor suñu avenir. gis nga Covid bi limu mu wane. yi il faut ñu am fierté modèle yi ñu bi yi jox du modèle rek mo fi ku nekk gëm sa. gëm sa nga Cuba. Cuba. Mm. depuis 50 ans américains est sous embargo 50 ans. Cuba le taux de la mortalité infantile est de 1%. taux de mortalité infantile. Mm. alors qu'aux États-Unis taux de euh, mortalité infantile est de 1,5%. taux d'alphabétisation Cuba est alors qu'aux États-Unis 97%. 97%. Cuba faut mobiliser les médecins dem jàppale ji la vieille et orgueilleuse Europe européen ak fierté ak orgueil Vous ñu Cuba mi nga depuis 50 ans dañ ko mobiliser dem di je pense que il faut ñu am toute fierté. da c'est une leçon pour les pays africains. c'est une leçon pour tous les pays du tiers monde modèle capitaliste binou ñu tubaab yi jaay nek na en faillite aujourd'hui ñom wané nako ko bi wané nako bu baaxa ba je pense il faut ñu am fit hmm. réinventer yeneen i modèle yu gëna mengo ñun ak suñu dundin ak suñu gisin hmm. ak suñu communauté je pense bien ñu taxaw ci lolu banen point bi nga xam bëgg na ju taxaw hmm. euh, gis nga gestion Covid bi bari na ay défaillance il faut qu'on ait le courage de le dire. défaillance yu bari gis nga ah test yi c'est un problème. 16 millions d'habitants ngay def tests 300 tests C'est un sérieux problème il faut que les gens aient le courage de le dire C'est un sérieux problème Là, le monté depuis trois jours. ça mhm. se teste yi nombre yi nombre de est ce que nous n'avons suñu bop oui commencer, oui Il n'y y' a aucune exception sénégalaise. Mhm. le Sénégal est dans la même situation que tous les autres pays la menace est là. Mhm. il n'y a pas d'exception sénégalaise nous bayyi ñun Sénégal di nax suñu bop ñoo gën ñëpp médecins yi ñi ngi def terrain y a un sérieux problème suñu deful dañuy ñu ñu de moins de 24 heures nit ci mhm. je pense que ni test yi nañ ko a pas d'exception sénégalaise bu ñu nax le Ghana 29 millions d'habitants a fait 70 000 tests 70 000 tests Ghana def nako ko. déggoon nañ autorité yi nan euh, on va passer à. on va on va depuis quand je pense dañ ko wara def c'est ça la vérité. nañ dem ba 1000 tests Sénégal 1000 tests ndaw na. je hein? pense war nañ mëna def 25000 tests au Sénégal. Hein? je pense que revendication boobu société civile parti politique yi mouvement citoyen yi dañ ko wara tek sur la table volonté politique la. Mhm. du du médecin y' a pas d'exception sénégalaise. bien sûr bu ñu y' a pas d'exception sénégalaise. Mhm. je pense que ni loolu dañ ci war a gën a liggéey bu baax a baax a bi mooy ñu bu mhm. ci réew mi. ci mesure surtout. mesure barrière mais au plan médical il faut gouvernement bi jël cas grave yi ñu am mhm. je pense que ni respirateurs yi dañ ko wara yok kenn nañu fagaru mhm. nañu fagaru nañu fagaru kenn xamul fan sont jëm ak fièvre bi ñaan suñu Borom bi mais ay 80 90 respirateur ci fièvre buy qui ni salam alaykum ci jëm mhm. je pense que ni côté bobu nañu ñu mobiliser un personnel bo xam defal leen une formation ñu maîtriser ko ñu fagarou yokko ko parce que mo gën a mhm. je pense que ni lolu mhm. je pense que ni war nañ ci gën taxawat bu baaxa baax. alors Babacar euh, nga yaakaar euh, lan mo war don taxaway Sénégal Afrique après Covid 19 face aux colons face. Euh, je pense aux pays européens taxaway bi yëpp moy Covid bi am lu mu modèle yi nga xam ñun dañ leena nawone nawoon jàppoon ni du ñu jàppoon nii ñoom ñooy lépp modèle yooyu wane na ni baaxul tubaab yi aussi wane nañ ni taluñ ñu mhm. France bu demee ba ni day téye ay garabam ci Sénégal mhm. ci fi ñu toll loolu mooy wane ni ñun mënuñu compter ci tubaab yi est-ce que néew situation moo moo jéggi dayo mais lan lay wane mhm. mooy de gisu amul benn defal sa bopp benn réew bu développé ci àdduna boo xamante ni ci ay ndimbal la développé wu loolu amul amul benn réew bu développé wu ci ay edd amul benn réew bu développé ci ci ci ci ci loolu amul. Mm-hmm. li am ba am mooy ñun ñoo war a xam suñu bopp xam ni 60 ans après les indépendances yeewu jot na solidarité africaine ñu am fit xalaatal suñu bopp. Mm-hmm. di yéeneel suñu bopp di waxal suñu bopp. Mm-hmm. lu ñu bëgg liñ am as néew ci alal. ñu xam fan lañ ko war a dugal. Mhm. ñu investir ci ci njàng mi bu baax a baax ndax ci la suñu ëllëg nekk. ñu investir ci santé bu baax a baax relever plateau technique yi ba nga xamante ni nit dina jombati feebar di dem faneen. Mhm. parce que xam-xam bi am na fi médecins yi wane nañ ne am nañ xam-xam bi bu baax a baax. ñi investir ci agriculture suuf am na fi ndox am na fi. surtout autosuffisance bi. ay ndaw am na fi yu ko liggéey baykat yaa ngi ci liggéey bi. ay ñun gàcce la la ñuy dundee ñu koy jëlee bitim réew. ñu investir ci industrie bi amul aucun pays au monde bu développer wu sans industrialisation émergence bi ay naxe kese la amul benn émergence bu am ci àdduna bi bu amul industrialisation amul mhm. amul y a pas d'émergence sans industrialisation yooyu ay axe de priorité il faut ñu am fit xam ñun lan moo pour ci ñun lan est gën ci ñun lan qui suñu yéene ci ñun lan la ndawi Afrique di xaar ci ñun lan la ndawi suñu réew di nous jéem ci je pense que ni ci la Afrique mën a moome boppam c'est une leçon pour toute le pour toute la communauté africaine pour tout le monde aussi oui ñi am courage jàngat am nous aussi amuñu courage c'est ça la vérité parce que jàngat dafa un mhm. da ngay gis les défaillances réellement les mhm. limites de ton action mhm. tu préfères jël ay concept de nouvel ordre économique mondial am ay conseils yu lay bindal ay ay textes ngay def ay contributions diko traduire en anglais en espagnol en chinois ah, raison d'être waxuma la amul raison. Hmm. da ngay xam lan et aussi xam yow lan sa priorité ba <laughs> nga taxaw bi nga ci sa hmm. leadership bi nga am tu après les vous êtes né après les indépendances. Hmm ñu jox la réew mu mel ni Sénégal mu def 12 ans de gouvernance catastrophique de Abdoulaye Wade. catastrophique oui bien sûr. entre guillemets. gouvernance catastrophique de 12 ans. Hmm. nga génn ci 12 ans yooyu yow ñu jàppoon ni da nga doon changer doxalin bu bees nga nga pire nga pire ba pare nga jël sa concept ou ay conseil bindal la ay quelque nga war àdduna bi naan nouvelle nouvelle ordre économique et je pense que ni ko sama benn xarit doon waxee démb ci une chaîne de télévision Cheikh Tidiane Dieye mettre de l'ordre d'abord dans la gouvernance ici en Afrique ba paré ak ci suñu réew yi génne Macky Sall dafa contradictoire yow mën nga génn di joxé leçon da ngay porter un leadership hmm. nga jël sa famille sa rak impliqué ko ci ay milliards ci pétrole gaz jël sa goro impliqué ko depuis bi nga fi nekkee transparence amul les rapports de l'OFNAC sont là cours de compte la gouvernance une revendication est une revendication de gouvernance de transparence probité morale intégrité lutte contre la corruption corruption c'est le coronavirus mm-hmm. Limi meilleurs coronavirus c'est ko Afrique en termes d'économie économie ak lepp parce que day ray 500000 euh, personnes dañuy dé ci paludisme chaque année ici mhm. en Afrique 500000 personnes tuberculeuses day ray tuberculeuse mi ngi ray ak yenen yenen yenen xaliss bobu buñ ko dugulon fañ ko warono 500 500000 personnes yoy di dé est-ce que dinañ dé est-ce que danañu dé ñaata xalé la seen jang di yaq par année seen jouni jouni jouni xalé seen jang di yaq

je pense bien ñu engagé wu ce que j'appelle une seconde émancipation bo xamni mom moy moo may suñu bop ñu mëna nek ñun en tant que sénégalais di xalatal suñu bop di jëfal suñu bop di yéeneel suñu bop xam suñuy ndaw lan lañu bëgg xam suñu réew lan lañu bëgg xam ne suñu réew lan lay xaar ci ñun je pense bien ci li ñuy mën a mën a tabaxee Afrique bu bees Sénégal bu bees. docteur Babacar Diop coordinateur secrétaire général force démocratique sénégalaise émission bi jeex na. maa ngi lay gërëm bu baax Euh, di nuyu sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi ñu doon suivre euh, ñi feebar. Mhm. yàlla na leen suñu boroom fëgg seen bopp. Mhm. ñoom ñëpp ñu wér. Mhm. dellu ci seen i kër. ñiy daw feebar beet yàlla nañu suñu borom musal ñoom ñëpp ñu bañ a daje ak feebar bi. ñëpp yàlla aar Sénégal. yàlla aar Afrique aar àdduna bi yëpp. ba monde bi mën a delluwaat ci ay activité waaye bu boobaat nañu jàngat ni. ah bu fi corona jógul it ay millions ngi millions ngi doomu aadama ñi ngi xeex pour sauver seen bopp ndax dañoo xiif ndax dañoo mar ndax dañoo feebar ñooñu ñëpp ay doomu aadama lañ ca war nañ leen dimbali ci seen xeex boobu ba ku nekk maanaam moom sa bopp jot sa bopp salaamaaleykum. mbokk yi doon seetaan Dakaractu dal leen euh, ñoo ngi leen di tàggatoo émission bi jeex na jox leen dig daje euh, beneen émission Actu ba c'est toujours avec plaisir ah docteur Babacar Diop ñu lay dalal si plateau. actu débat surtout émission bi nga xamante ni commencé na nekk benn rendez-vous exceptionnel yéen mbokk yi tamit jox leen dig daje ba beneen yoon merci beaucoup